bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nu ngi nii bu baax suñu kilifa yi toog ci jataay bi ca nekk ci comité d'organisation màggal gi ñuy ñëw rekk ci wàll goo xam ne wàll gu am solo la ci màggal gi te mooy li jëm ci wàllu activité culturel ak scientifique yi nga xam ne moom lañ baaxoo amal muy li jëm ci wàllu xam-xam ak tasaare njàngalim Sëriñ Tuubaa ndax bu ñu fàtte ne commission bi nga xam ne mooy bokk na ci yi ëpp solo ci biir comité d'organisation mooy commission culture ak communication ndax màggal day événement boo xam ne xew-xew boo xam ne léegi àddina bépp a ko bokk bu ñëwee mu mobiliser mboolem loo xam ne jumtukaayu tas xibaar la ci réew mi ak ci bitim réew àdduna bépp di ko topp kon day jaadu ñu di ci profiter pour ja jàllale njàngaleem Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne àdduna bépp soxla soxla nañ ko commission culture culture ak communication nag dafa baaxoo ànd ak daayiratu Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne Sëriñ Ahmad Badawi moo ko jiite ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu googu ren nag xam ngeen ne contexte particulier lañ nekk yaakaar naa professeur Lamine Gueye ak sëriñ Abdou Lahad bi ñuy tàmbuli xamal nañu fàttali nañu contexte bi ñu nekkoon bi ñuy jub màggal lu bari doon nañ ko ci ragal waaye sëriñ bi mu joxe woon ndigal ne li nga xam ne moom lañu war a def ci màggal gi nañ ko def waaye ñu boole ci respecté li nga xam ne mooy mesure barrières yi ba loolu tax bi sëriñ Bachir Abdul Qadir joxe ndigal wax ne colloque bi nga xam ne daanañ ko def ñetti at yu nekk ren la waroon a am ndax 2011 2014 2017 ñu waroon koo def ren dañ koy amal kon dañuy ñëw rek ci bilan bi nga xam ne def nañ ko ci wàllu activité culturelle yi la ca jiitu kon mooy colloque boobu nga xam ne colloque international la bu am solo thème biñ ci jëloon nekk thème boo xam ne dëppoo na ak contexte biñ nekk ndax ku ne xam ne yoonu murit ak njàngaleem Serigne Touba xeet ma lu am solo la ci te gis nañ xeet ma boobu niñ ko jëfandikoo ci biir Covid bi ak lim indi ci ay njariñ ak li nga xam ne ci biir xidma lañ ko jaarale ba jariñ ci windeef yi loolu jàpp nañ ne àdduna bépp war nañ koo xam war nañ koo partager ak ñoom moo tax thème bi ñu jëloon ñu waxoon la xidma et les œuvres de bienfaisance mécanisme spirituel pour faire face au conséquence de la pandémie de coronavirus ngir àdduna bi ñeneen ñi indi seeni expérience waaye buñ ñëwee ñun ñu jàngal leen suñu expérience ak jàngal leen Sëriñ Tuubaa thème boobu bi ñu ko lancé réew yu bari wane nañ seen bëgg cee participer ñun bi ñuy démarré benn jour lañ ko programmé woon ak ñaari session ak six communication mais au finish am nañ di set communication fukki réew ak ñett bokk nañ ci colloque bi kon mooy wane importance bi nga xam ne amoon na ko àdduna bépp bàyyi woon ko xel waaye nag ñu def ko ren forme visioconférence ànd ci nag ak ay partenaires yu am solo ndax ñi ngi doon jëfandikoo ñi ngi doon ànd nañ ci ak UVS muy université virtuelle du Sénégal ñu xamoon leen ci wàllu visioconférence ak comité d'organisation xam nga am nañ sous commission intique ñu jàmbaare mel ne Bichri TV ak yeneen partenaires yoo xam ne ànd nañ ci ñu def conférence yi en ligne waaye yàlla ñu jaarale ko ci réseaux sociaux yi ba nga xam ne ñu baree bari suivre nañ ko tey rek laaj na techniciens yi ñu defal ma benn bilan statistique yi ñi nga xam ne jot nañoo suivre colloque bi ci réseaux sociaux yi par exemple Bichri yi ñoom bi ñu defee seeni statistique liñ ma jox ci ñi ko suivre ci seeni ci seeni euh, réseau mat na quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante-huit bu ñu ak mooy ci application bi ak euh, YouTube bi ak Facebook bu ñu xoolee télévision bi deux cent quarante-quatre mille trois cent soixante-quatorze euh, suivre nañ ko bu ñu xoolee Magal TV muy comité d'organisation bi seen chaîne bi ñu am gis nañ ci seen réseau ñoom it cinquante-quatre mille yoo xam ne suivre nañ ko jokkoon nañu ak waa pour ñu jox ñu seen statistique mais temps bi xam naa mayutoon ba jotuñu ko ca ñoom seen réseau rek am nañ mille ci seen biir réseau kon loolu wane ne kon suivre nañ ko largement ci àdduna bi ca loolu it éco yi ñu ci am wane na ko ndax ñu ci participé woon ñu ci baree bari jox nañ ñu feedback xamal nañu loolu am na solo kon loolu lañ doon wax ci gàttal ndax pays ci bokk bari na lool mën naa ciy tudd Mauritanie Maroc Tunisie Égypte Jordanie Oman France Belgique Irak Syrie Angleterre Liban Émirats arabes unis ak Somalie yooyu yëpp ci ñi nga xam ne participer nañ ci euh, colloque bi lañ bokk waaye ku ne xam na ne colloque bi rek du woon activité màggal gi am na activité yu am solo yoo xam ne Rawdu Rayaahiin baaxoo na ko amal bisu màggal gi am na table ronde bu am solo boo xam ne dañ koy faral di def nga xam ne yeneen këri diine yi dañ ciy bokk ñeneen ñiy màggal si dañ ciy bokk ñu jël benn thème boo xam ne day yitteel réew mi ñu waxtaane ko ren ñu def ko en ligne biñ ko defee thème bi ñu jëloon mooy suñu mag ñi ni ñu sàmmee li nga xam ne mooy suñ patrimoine jël lu mel ni école acharite joxe ko comme exemple nga xam ne tarixa yi tarixa bu nekk moom nga adopté liggéey ci liggéey yu am solo ca mu bokk ci li nga xam ne sàmm na suñuy pas-pas sàmm na stabilité réew mi loolu thème boobu lañ ci doon waxtaane def ko en ligne am nañu ci participer ne Gambie ak ñoo xam ne fu Wourossogui euh, gi ak yeneen barab ci ci ci ci Sénégal euh, guddig màggal gi baaxoo nañoo def conférence bu am solo boo xam ne àdduna bépp moom dañ koy suivre Rawdu Rayaahin di ko def nga xam ne mooy bi nga xam ne Serigne Salihu radiyallahu anhu moo ci joxe woon ndigal ñu doon ci berndeel gan ñi nga xam ne ñooy këri diine yi ak borom xam-xam yi ñëw ci màggal gi ni leen di berndeele ci xéewal yeneen yi ci des ñu baaxoo def gu ren aussi fexe nañ ba def ko moom it ñu bari suivre ko ñu defoon ko ci dunduk Serigne Touba radiyallahu anhu lu jiitu muy muy dem ci géej gi loolu bu weesoo am na ay émission yu baree baree bari yoo xam ne def nañ ko masalan xidma lañ jëloon comme muy thème général ci acti ci émission yi nga xam ne moom lañ def def nañ ci enregistré nañ ci quinze émissions yoo xam ne jàllale nañ ko bu dee ci ma euh, surtout màggal gi jàllale nañ ci lu mat 22 émissions yoo xam ne 25 émissions yoo xam ne def nañ ko bu ñu recensé intervention yi nga xam ne suñ personne ressource yi ñu mobilisé woon def nañ ko à travers ci média bi bi ñu ko xoolee mat na 103 programme yoo xam ne bokk bokk bokk nañ ci kon loolu ci gàttal ci tënk rek ak waxtu xat wi mooy wane ne kon culture bi dañoo gis ne sax dafa mel ne ren la gën a am impact ren la lañ ko gën a topp ren lañ ko gën a teewlu loolu rek di wane ne kon wet gu nekk goo xam ne ña ngi ca doon am jaaxle bi màggal gi ñëwee dafa mel ne suñu borom daf cee tawfiq ñoo am ci résultat yoo xam ne weesu na la nga xam ne moom lañ ci doon séentu loolu laa amoon ci tënk ci wàllu euh, commission culture bi ñu di ci sant nag Serigne Abdoul mi nga xam ne moo yor commission culture waaye nag teg lépp luy culture ci loxol sëriñ Ahmad Badawi nga xam ne kon kàddu gi ñuy yëkkati ci tur Rawdu Rayaahiin ci turam lañ koy yëkkatee waaye loolu yëpp ñuy sant Cheikh Mouhamad Bachir Cheikh Abdoul Qadir ak sëriñ Ousmane ñi nga xam ne ñoo yor comité d'organisation bi waaye loolu lépp nag ñuy ñaanal Cheikh Mouhamad Muntaka yàlla yàggal ko fi lool te yokk wéram di sant comité bi nga xam ne eh, moom la professeur Lamine jiite woon cañ gis liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.